ñu ngi ci nete juróom-ñaar fukk bi ak ñeent am ñu ma a wax sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawoo ni ko sëriñ Maam Mor Jaara danga ko koo defalul li ngay defal ñi ci des sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawoo ni leen li ma ko defal defaluma ko kenn ndax dama romb ndéeg néeg ndey ñëpp ñëw ba ci moom ma bokk ak moom néegum ndey siiw na ndegam sëriñ bi moom leeral na ni bokkut kenn dara kon lii mu defal sëriñ Maam Mor Jaara doy na sëkk ak may ak xéewal ak jagleel ndax fu ñu ko tudde dañuy wax moom soxna jaara radiallahu taala anha walaw alam